yaa ngi ci xarfu baa kon nu bàyyi la nga continuer diggante sëriñ bi ak rasulullah euh, jërëjëf kon ba mu delsee ci baa yi dafa wax ne baana lana baan bi la tibaasi kaw nu ibn abdullahi xayra naas baana li jumlatil kira li jumlatil malaayikal kiraam kaw nu rasulullahi lil mu ne leer na te amul benn sikk sàkk ne yonent bi alayhi salaatu salaam jooju mooy ki gën ci nit mu ne leer na malaaka yi it nekkug rasulullahi mooy njiit di imaam mu ne kooku nag ak jiitoom kañ la baana bi xawlihi balee hudaahu yow ma alastu fa hada siwaahu ba suñ borom ne alastu bi rabbikum moo jëkk ne balee moom yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne baha bihi l ajdaau ajdaadu wal abaau bi ihtala al wal ajwaan yonente bi salatu salaam ci moom la ay maamam di puukare woo moom puukare woo wul ay maamam waaye moom la ay maamam di puukare woo waaye it ci moom la arab yi ak rajam yi di yëkkati ko nga xam ne mooy sangub arab yi waaye mooy sangub ajam yëpp mu ne yonente boobu day boo bëggee xam dara darajaam bihi bulil arduna wa sama wa xuliqa rijaalu wa nisa Sëriñ Tuubaa ne la rasulullahi moo tax ñu bind asamaan yi ak suuf yi moo tax ñu bind góor ñi ak jigéen ñi loolu day ñëw caxar fu baax mu ñëwaat caxar fu jiim wax na jaadalahul xadiimu bi taqdiimi qabla duhuril xalqi wa takrim ak jiitoom nag négul ba mbindee fi feeñ nubuwatuhu xablal baraya خالد جلب له السب إن الجد في تين يحسن كون خمجني لا أنت الذي أعطيت قدما والنبوة وآدم بين الماء وتين ينجل بل يلا جيتل آدم من كبان كون أجيتهم لو يجع يجع لنا خمل نوبي يقول كون يوننتي بسلا سلام فوفل جيتو من جزاء من أتى الجنان ومن عصاه فله نيران نحن فايو كتاب كوكو الرسول صلى الله عليه وسلم mooy tabbi àjjana waaye nag képp ku ko won ginnaaw moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nee na sab safa sab tabbi waay ëllëg mooy tabbi sawara nga xam ne moom jëmmi àjjana ju wóor yaa ngi koy amee ci topp yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ne moo jihaat ak bakkanam jihaat ak noon yi ba taxawal diine ba kawee lu jub jahada nafsahu wa jahada al ida hatta aqama diine waxtalal hula mu ne kooku day dem ba yàgg muy wax ne maa ngi ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala mu def ma man Serigne Touba ma nekk ko koy liggéeyal ci xadaraam ba waaye def ma it may koo xam ne damay wattu xormay yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ma ko def jaana lillah xadima xadratihi wajaada li jàll bi xifdi ma moo ma ko def mu nekk xadima rasulullah salaam ndax loolu it yàlla koy jagleel nit xam nga tey dafa am loo xam ne tur wi nit ki tudd day nekk tafaawulan muy gaat nga mën nga ne diw nangam diw nangam waaye liggéey ko ba mu nekk ismu xaqiqi moo jafe sëñ bi mi nekk xadiimi rasul nekkul turuwum ab rek jekki-jekki rek da nga léegi sax nga dégg ku koy wax sëñ bi dafa bëgg yonente ba tudde boppam xadiim rasul déedéet tudde sa bopp xadiim rasul bokkul ak ñu namee la ko sëñ Tuubaa nee na ñaari malaaka yi di seeral ñëpp nga xam ne maa yalfadu min qawli laa ladayhi raqibun atid amul kenn kuy wax te ñaari malaaka yooyu séerewuñu سيدنا توبا نانا نياري ملاك يبد بوسط نيوم اي سيرال تي يالا نا ماي عبد الله وخديم رسول يشهد لي بدا رقيب وعتيد في كل يوم ان سير عرس العظيم موتاخ نانا ماي سانت يالا ميمكو جاغلال نك شكرته اسخصني بخدمه الماحسني سا خدمه فعلني له وفك ولني شكرته اسخصني بخدمه الماحسني مانكوي سانت بما دفي ما نيك خادم الرسول ميغا خامني ماكوي لغيال كون داكي سانت يالا بروم بي سبحانه وتعالى تي لغيي غيم كوي لغيال boo delloo ci biir xasida gi ba tey rek. dañ ciy tànn li ma lay wax rek ay bunt lu ci nekk ngir mën caa jàngale. mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy koo xam ne mooy njiit la ci asamaan ak suuf yi juróom-ñaar mooy ki nga xam ne it ak jubam mooy tata ji nit ki mën a sukkandikoo ba yegg fu nekk fa mën a jëm waaye mu wax ca biir nag arfu ha habliye rabbi bi jaahil azim kaw ni lahu huna wa fi xaddin xadim wa fi xaddin xadim habliye rabbi bi jaahil azim كوني له هنا وفي غد خديم داف ما تاي جي ماي خادم بس بنتي ماي خادم الرسول سن توبا دنا داماي ليغيل يونت بن تابع جان اخدمه الى دخول الجنه دار الخراري والمنا والمنه خنا استاذ باب كولم با اجنا من nga tok seigne touba neena buñu démé ba ëlëk yalla atté jamm ñi bañuy dem bañuy dem aljana وجعل لي بجاهه ممن يقدمه في الجنه داف ما بون ديمي با اولك اولي ماي نيك ادنا ناوي ديلو دي لغي رسول الله فام نيك تي بير الجنه تي بير الجنه موي كونتيني دي لغي وجعل لي بجاهه ممن يقدمه في الجنه موتاخ من كوني له هنا وفي خد خديم ناكوي لغي تاي ديكو لغيل الك يوم القيامه غن جيم كون لولو داي واني دايو بي مي وون جوخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام يونتي بو مو بغيت اك جوخ جيم كو جوخ مو boo demee ci xarful waaw mu waxaat boppam ne day wax ci biir ba yàgg mu ne wuduhu kawnil mujtaba cheikhul wara cheikhul wara azharu min shamsin sax wan troit doon ngi yonent bi doon sëriñum ñëpp nee na jant bu féng ba nekk ci yooroor ni nga naan ko jàkk gis ne jant bi mu ngi ci yoor yoor ni muy leere nee na ni rasulaay doone sëriñum ñëpp a ko gën a leer sëriñ Tuubaa nee na wuduhu kawnil mujtaba cheikhul wara أظهر من شمس duha sahwan tura jant بو تولو سي ديغ njooloor نا دان لير nañ nga gis ko xam li jant be neena lum leer mu leer leer rasulullahi ñum ñëpp ko gëna leer neena lolu loolu leer lu la leer leer rek neena nek gi yonnati bi alayhi salatu nek nekk sëriñum ñëpp moko gëna gën a leer moo mu ne wajabu shukrul ulama wal arifin li rabbihim ala imamul mursalin walli ak borom xam-xam yi ak ñi xam yàlla war nañu sant seen borom subhanahu wa taala ci nek gi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nek jitt وجهت وجهي واشكر لك بالمصطفى جد لي بكوني عبدك موم ديغنت بي رك لاي باغنت جامو يالا لغي لي ماي العباده والخدمه موت عبد الله وخديم دي نيك تروم عبد الله وخديم رسول يا خامن امول فن فوم نيك waye mu dina jangal nak ci yonenti bi simam kul anbiya wal awliya bi yaddi ahmad rais al asfiya mbolem yonenti mbolem waldi mbolem gay yu bax yi mi ngi ci loxoy mustafa sallallahu alaihi wasallam kon moy jitu ñep moy wommat ñep mom alihi salatu wasalaam mu demat ba yag mu ne yit ci ci biir zahiri wa batini ma, ma kauni khadiman lahu muttabaa señ tuba ne man duma ganjaro wurus or du du garat ci man jama du garat ci man len lu nit di tak de ganjaro man tukuma am ganjar mm-hmm. lan moy sama ganjar. كوني nii xaadiman lahu mu tabbaa doon gi ma doon xaadima rasul waaye nag mu tabbaa nag di ko roy na nga bàyyi xel ne sëñ biit li mu bëgg bëgg yonent bi dana ko foo teg boo teggee ma teg laysat liyal yawma dama lay roy lu mu tagg yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam roy na ko ko roy na ko yonent bi alayhi salaam nga xam amul ak juuyoo ak yonent bi alayhi salaam nee na lu ma ko tagg rek roy naa ko bi sallallahu alayhi wasallam kon motax neena man sama ndax yonent zinatuhu bi hata ziyyanal wara wa izzuhum min azzihi taqarrara nit ñi seen ak seen njëkk yi mi ngi bayiko ci taarub rasulullah bàyyi seen tedd nga mi ngi bayiko ci tedd nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu door na sama tedd ngay biir sama taaru biir ak sama taaru biddi moy nek gi ma nek khadim rasul man Serigne Touba lolu moma may melokaan wi ma mel ak nekkin wi nga xamne ci la nek mu ne yonent bi salaa salaam it maa ngi sant yàlla hamidu rabbi ladhi وفقني وخدمة للمصطفى رزقني ما عندي سنتي يلا نحن ما ورسقلي ما يلقي